فلأنصرن الحق حتى أنني أسقو على ساداتكم بطعاني الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعباني بأدلة القرآن أبطل سحركم وبه أزلزل كل من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ginnaaw loolu mbokk yi bi mooy ñaareelu jotaay ci jotaay yi nga xam ne moom lañ fas yéene def ci waxtaanee lu jëm ci ay azkar ak ay tomb yoo xam ne euh, day leeral yenn àtte yu ci jëm euh, ci jotaay bi jiitu woon waxoon nañ yenn tomb ak yenn masala yu aju ci al dañuy continuer ci yooyu ba léegi Euh, masala bi ñu njëkk a waxtaane nag euh, ci jotaay bi masala bi nga xam ne euh, dafa xaw a lënt ci ñu bari surtout ci jàngkat yi mooy wax ji wax ne ci buntub azkar wala ci buntub ay ngëneel mën nañ cee riwaaye ab xadis bu wérut même bu xadis bi wérut mën nañ koo jël daal koy jëfe ñu bari boo leen waxee ne ñaan bi werut wala zikri bi niñ koy waxee nii wetu werul euh, dañ lay wax ne boroom xam-xam yi nee nañ buntub ñaan wala buntub askar buntub ngëneel xadis bi werut mën nañ ci cee mën nañ dañ ko ci jël loolu nag duñu bari niñ ko foogee noonu la deme waaye boroom xam-xam yi dañ daan daan teqale diggante xadis yoo xam ne day ñëw di wax ci ay àtte xadis boo xam ne day daganal dara wala di araamal dara loolu moom faaw mu nekk xadis boo wér a wér ñu mën koo jëfe waaye dañ daan woyofal ci xadis boo xam ne dafa ñëw ci fadailul amal dañ ci daan xaw a woyofal waaye woyofal gi nag ci ne mënees na koo jëfee dafa am ay charte yoo xam ne faaw mu daje ci bi ci njëkk mooy xadis boobu du nekk xadis daif jiddan du nekk xadis bu wér bu euh, boo xam ne ñàkk wéram dafa tar du nekk xadis boo xam ne euh, ak ñàkk wéram dafa tar lool comme xadis boo xam ne euh, ab kazaab moo ci nekk koo xam ne du wax dëgg wala xadis boo xam am maturoog moo ci nekk yu deme noonu loolu xadis bu mel noonu même bu ñëwee ci fadaayil amal kenn du ko nangu beneen ba ca it beneen ba ca topp mooy buy jëfe xadis boobu day jàpp ne xadis bi wérut waaye nag da koy jëfe rek ngir wóorandi ko ngir ixtiyaat loolu borom xam-xam yi wax waaye liñ ci jublu dëgg dëgg dëgg mooy fadaayilul amal ay ngëneel yoo xam ne dafa ñëw ci ab jëf comme ab jëf boo xam ne dafa sax ci sharia comme sax na ci sharia ne julli yoor yoor lu baax la loolu moom ku ne xam ne sax na ci sunna bu fekkonte ne nag dafa am beneen xadis bu ñëw nag di wax ne ku julli yoor yoor di nga am nangam ak nangam ak nangam xadis boobu nekk daif su boobaa lañ la wax ne xadis boobu nga xam ne dafa indi ak ngëneel waaye ngëneel gi mu indi ci atte bi mu ko teg atte boobu sax na ci sharia ba noppi mu julli yoor yoor loolu sax na ci yeneen xadis yu wér waaye ngëneel googu mu ci mu ci wékk ci xadis bi moo wérut su boobaa la ñuy wax ne ah euh, manees na ko manes na koo jëfee dal am yaakar ci man nga ci ngeenel googu ñew ci hadith bi ñew ci hadith bi wuro bo man nga am yaakar ne man nga am yaakar ngeenel googu nga am yaakar am ko waye hadith bi bu fu nekkul won sax mi salatu duha mom jëm yo jull yor yor mom sax na ba nopi ci yeneeni ci yeneeni hadith waye ngeenel gogou googu rek mo ci yok ñew ci hadith bi wuro lola loola lañ ci jublu waaye xadis bu yorut ñëw di saxal ak jaamu yàlla moo xam di saxal ak julli wala ak woor maanaam di saxal ay naafilay julli wala ay naafilay woor wala ay naafilay ñaan ba noppi di ko wutal ab lim ne nañ ko defee nangam ak nangam ci ay lim wala boog wutal ko am melokaan ni ku koy def na def nangam na nga toog wala na nga taxaw wala na nga na wala boog wutal ko ab palace ne nañ ko defee bërëb sàngam wala wutal ko ab ab ab zaman ab jamono nañ ko defee waxtu sàngam bu dee xadis daif bi ñëw dafa am ay tënk yooyu su boobaa xadis daif boobu kenn du ko jëfee ci fadaayul amal bu boobaa bokkut ak yi li borom xam-xam yi di wax ne xadis daif dañ koy jëfee ci buntu boobu déedéet na xadis boobu dafa indi ay tënk ci tënk yooyu mu indi tënk yooyu ab sharia rek moo ko mën a wax dafa war a indi dafa war a ñëw ci xadis bu wér ñu man koo nangu kon xadis yu wér yi nga xam ne moo ñëw di wax ne ci misaal jullik sàngam nañ ko def ci heure sàngam ak sàngam képp ko def ci heure sàngam ak sàngam di nga am nangam ak nangam wala képp ku julli ñaari rakka rakk bu njëkk bi nga jàng ci nangam rakk bu beneen bi nga jàng ci nangam soo paree nga def nangam ak nangam di nga am nangam ak nangam yooyu xadis yooyu bokkut ci xadis yi boroom xam-xam yi di wax ne dañ koy jëfe ci bunt bi déedéet yooyu dañ koy delloo kenn ko jëfe kon bunt bii bunt bu jara bàyyi xel na nee naa la liñ ci jublu mooy mbir moo xam ne dafa sax ba noppi ab xadis ñëw bu wérut daaj ci yokk am ngeneel boo xam ne nekkul ci xadis yu wér ya yooya lañ wax ne mën ngaa loola boo koy jëfee mën ngaa am dal xel mën a am yiw woowu ñu ca wax Eh, waaye nag fekk xadis ba indiwul di tënk dara di wax ne nañ ko defee nii wala nañ ko defee naa yooya bu fekkee daf caa am mooy tënk yooyu su boobaa jëmmi tënk yooyu des koy delloo faaw xadis bu wér rek moo ci mën a ñëw ngir ñu mën koo nangu masalab ñaareel bi mooy ñaan yi nit ki di ñaan muy al azkar yi ñuy def léema yi moo xam laa ilaha illallah la wala subhanallah la wala yi nga xam ne yonent bi saa sallam dafa wax ne képp ku ko def dina la aar ci nangam ak nangam ku ko képp ku ko def dina la aar ci seytaane wala dina la aar ci njabar est-ce que dina daga nit ki di ko def jublu ci loolu kese nga xam ne nit ki moom li tax muy tudd yàlla dafa bëgg muccu ci njabar dafa bëgg muccu ci seytaane loolu dong ko tax a jóg wala li ko tax a def azkar dafa bëgg am wërsëg ci dañ kaa wax ko def ñaan bii da nga am wërsëg nga xam ne moom ñaan yi muy ñaan ak azkar yi nga xam ne moom lay def àdduna dong la ci bëgg luy defar àddunaam dong lii dañ koo wax ne ku ko def doo am naa nga moo tax mu koy def nga xam ne du teewlu sax ne lii jaamu yàlla la boo xam ne suñ borom moo ko diglee lu ñu sopp la Euh, wala du teewlu ne lii sunna yonent bi salaa salaam la même buñ ci digalu woon dara ne ku ko def di nga am nangam sax da koy def loola du ko ci teewlu waaye moom lam cay teewlu lam cay bàyyi xel rek mooy lañ ca wax ci aw yiw su boobaa est-ce dagan yenn borom xam yi ne loola dana dagan waaye moom lam ca yéene dong lay am lam ca yéene dong lay am du bokk nag ki nga xam ne moom ba mu koy def def ci yéene fegu yéene ci mucc waaye yéene waale ci ne lii muy def azkaar yi muy def du mucc dong lay jariñ waaye jaamu yàlla la ci boppam boo xam ne da koy def ngir jaamoo ko yàlla ngir jegee ko suñ borom subhaanahu wa taala ngir yàlla mën ko cee fay ëllëg su boobaa kooku moo ëpp daraja mu ëpp tuyaaba kee nga xam ne moom def koo def rek ngir mucc ci àdduna wala ngir ne dañ ne ko lii day faj bopp buy metti mu def ko ngir boppam bu metti wér nga xam ne yéenew ci dara yowmal qiyaama ñoom ñaar duñu bokk ay atti kon loolu lu jar a bàyyi xel la nit ki buy def ay azkar mu ciy bàyyi xel suñu borom subhanahu wa taala bàyyi xel ne li muy def ak jaamu yàlla la ñetteelu tomb bi mooy azkar yi rot ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngale ko dinañ sopp lool di feddali nit ki mokkal ko ni ko yoon bi saa sallam indee woon te mokkal ko nekkul lu jafe ndax nekkul azkaar yu baree bari te nit ki ni muy sonnee di wuti ay léemaay ci loo xam ne naka sutu noonam la ci loo xam ne lu xaraam la da ci sonn dem ci ay njabarkat am na ñoo xam ne bu leen waxee ne dëkk sàngam am na ku fa nekk ku mën nangam nangam dëkk ba lu mu sore sori sori danañ paas dem ca dëkk boobu lijjanti ko te buñ leen waxee ne lii ñaan la boo xam ne yoonu saa sala moo ko joxe képp ku ko def di nga mucc ci nangam di nga mucc ci nangam duñ ko mën a duñ ko mën a mokkal day metti loolu ci ci ñoom ñu mokkal ko te buñ ci toogoon ay fan yu néew mën nañ koo mokkal kon nit ki dafa war a xër di mokkal azkaar yi nga xam ne moo rot ci sunna ak lu làmmiñam diis diis na jéem a fexe def kemtulaay kàttanam ba di ko déglu lu bari ngir mën koo mokkale ni ko yonent bi salaa sallama jàngale ndax mu man cee am li nga xam ne moo ci moom lañ ci diggee ñenteelu masala bi nag mooy nit ki azkaar yi bu koy def dafa war a ànd ak teewlu ak yaqiin waaye nag dafa war a gëm ne nag du faw rek bu defee bu defee azkaar yi liñ ko ci wax rek da koo war a gis ci saasa bu ne ko woon askar yi ku ko def kenn kenn du la ñabar mu def ko ba noppi ñu daal koy ñabar bu mu jàpp ne askar yi askar yi mu def moo moo efficace moo baaxut déedéet waaye askar ay asbaab la yoo xam ne suñu borom subhaanahu wa moo ko fi teg yonent bi saasam koy jàngale mu nekk ay ay sabab yoo xam ne nit ki da koy sabablu di ko def waaye nag mënta daq dogalu suñu borom subhaanahu wa taala bi war a dal ci kaw jaam bi ndax dogal boobu war a dal ci kaw jaam bi te mu def askar ba noppi loola du caagante ne suñu borom dafa nanguwul azkaaram yooyu wala dara déet waaye loola mën naa nekk lu gën ci moom sax mën naa nekk suñu borom subhaanahu wa taala koo defal ngir da koo teg natt boobu ngir fànqale ko beneen nattu bu gën a mag bu ko nar a dal wala ngir jëggal ko ay bàkkaaram eh, wala ngir eh, yëkkati ay dara jaam kon yooyu yëpp jullit bi da ko war a bàyyi xel bu jàppee ne bu defee azkaar rek moom jeex na dara waru koo metti dara waru koo dal warta feebar déedéet saxaaba yi dañ daan def seen azkar waaye teewul naan feebar teewul dañ daan dem ci xare ñu leen di jam kon loolu du tee nag nit ki doolu suñ borom subhanahu di ko dal waaye teewul nag bu mu bàyyi azkaaram mi ndax euh, yonent bi sallallahu luy sàmm la luy sàmm doomu aadama nam lay sàmmee sax xañ ne doo ko xam xañ na mi ngi lay sàmm ci sàmm biir goo xam ne yow doo ko yëg comme mi ngi mel ne kon ay garab yi ñuy naan bu ne laa garab gi day faj mën nga koo naan ba noppi du la faj kee naan ko mu daal koy faj bokk na tam ci liy gën a dimbale nit ki azkaar yi mën koo jariñ mooy mu amul gëm yàlla mu amul wóolu ci azkaar yi am na ñoo xam ne boo leen waxee ni defal azkaar sàngam ak sàngam loolu kat lu baax la yooyu du saas da koo jàngale da koy def ne ah naa ko def rek comme wax nañ ko waaye taxul mu gëm ko mom dal bala moy gëm dar dal faaw nga jox ko lu muy diwo wala nga wax ko yu compliqué ne ko demal ba ci dig yoon bi bo démé bu fé nga dal fay samplé fé nga samp fale bu la kenn gis wax ko yu compliqué dal mu soga mu soga mu soga xelam soga dal daal ah li ka lu bax la waye boko waxé lu yomb ne ko yoon bi sallam néna bo waxé a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq ci ngoon dar du la mëna lor wala boo wàccee ci ak kër nga dëkk fu bees nga wax loolu dara du la mën a lor foofa ba këram ngay dem boo ko waxee loolu kese day jàpp ne loolu ndaw la waaye buy tuxu si faaw mu woo ñenn ñëw xoolal ko kër gi samp samp fee béjjén samp fee nangam daal di sulli suul nangam yu compliqué yooyu lay soxla te moo ne yooya yépp ay xarfa xoofu la yoo xam ne ay bokkaale la waaye jëmmi baat bi da koy xeeb waaye bu gëmoon baat bi gëm ne lii ci suñu borom la bàyyi ba bàyyi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ñoom te yonent bi sallallahu lu mu wax dëgg la ko ci xolam loola dana ko jariñ waaye ñu bari dañuy wax azkaar yi fekk seen xol du ànd ak teewlu seen xol du wóolu li muy wax du wóolu ne azkaar yi mën naa def effet mën naa def jariñ loolu nag nit ki bu ko amut loola du ko mën a jariñ mi ngi xale bu ndaw rek nga jox ko jaasi lu jaasi yi ñaw ñaw ñaw ci xale bi amul doole amul kàttan bu dóoree du dagg bu dóoree du dagg kon jaasi ji mooy azkaar yi moom lu ñaw la lu mën a dagg la lu mën a def njariñ la waaye yow mi koy wax nag yow yaay loxo bi dóor jaasi gi yow faaw nga am ak kattanu ngëm yàlla ku nekk ci yow ak wóolu suñ borom subhanahu wa ne lii mu dige kay lii mu dige luy am la su ko defee azkaar yoo mën a jëriñ waaye fekkee sa xol sa ngëm yàlla dafa faible boo waxee azkaar yi tamit lu mën nga ko wax nangami yoon ci teewul du du def benn effet ci du la jëriñ dara loolu lu jar a bàyyi xel la juróomeelu masala bi nga xam ne nag ci lañuy mujjee mooy azkaaru sabaax wal masa ñaanu ñi ñaan suba ak di ko ñaan ngoon masala bu njëkk bi bi ci aju mooy kañ la suba di tàmbale boroom xam-xam yi wóote nañ ci waaye li gën a wér laa lay wax li gën a wér mooy bu fajar duggsee bu fajar dugusee maanaam bu noddee ñaareelu noddu fajar bi ñaareelu noddu suba buñ ko nodde ba nit ki mëna julli suba booba waxtu suba dugg si waxtu azkaru sabah dugg ñaan yi ñu war ñaan ci suba booba lay tambalé ba kañ lay jeex bu jant bi fenké bu jant bi fenké la ñaan yi jeex képp ku ko fàtte nag ci diggante boobu su ko defee mën nga ko wax bu jant bi fenkee ba petit tisbaar di si diggante boobu diggante bo xamné mu wax ko ci ayut waaye nak wax ko ci digënté euh, julli fajar euh, ba jant bi di fenk mooy waxtu normal moy waxtu bi nga xamné moy mooy waxtu wi gën ñu wax ko ci azkaru sabah kon képp kuy def sa azkaru sabah say ñaani suba na nga dak digënté bobu mooy fajar gi ba jant bi di fenk nang ko ci wax bu dee ngoon gi nag ñaan yi nga xam ne ngoon lay tàmbalee ngoon nga koy wax loolu li ci gën a wér mooy bi ngi tàmbalee ginnaaw ginnaaw tàkkusaan bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi wala bu tàkkusaan dugg see rek ba waxtu tàkkusaan romb waxtu tàkkusaan jot ñaani ngoon yi tàmbale na ba jant bi di so mooy ba timis di jot diggante boobu nga koy ciy wax boo ko fàttee nag ci diggante boobu may na la nga wax ko ci jant bi bu sowee ba ba xaaju guddi gi diggante boobu it diggante boobu aayut nga wax ko ci waaye wax ko ci diggante tàkkusaan ba timis mooy li gën mooy mooy mooy waxtoom dëgg-dëgg yan ñaan am na ñaan yoo xam ne dañ koy wax ci suba si di ko wax ci ngoon gi dañ koy wax ci ñaar yépp loola bi ca njëkk mooy ñaan bi may waaji tudd allahumma anta rabbi la ilaha illa ant xalaqtani وأنا عبدك <clears throat> وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت بابو dañ koy wax ci suba si bu ngoon ñëwee beneen bi ca topp mooy laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kooku am na ñaari façon bu la neexee ci bis bi yëpp nga wax ko téeméer yoon boo ko waxee téeméer yoon ci suba si baax na wala nga bàyyi si nga wax ko téeméeri yoon loolu baax na wala nga jël beneen façon bi boo xam ne ñëw na ci mooy euh, suba si nga wax ko fukki yoon ci ngoon si nga wax ko fukki yoon su boobu it bu la neexee nga daal koy def kon bu la neexee nga da koy def benn téeméer boo xam ne ci benn bi xam ci suba nga koy def wala ci ci ngoon gi wala boo xawee taayal tuuti nga jël beneen façon bi mooy fukk nga wax ko fukk suba wax ko fukk ngoon muy laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli ko wax deen la bindal téeméeri yool faral téeméeri bàkkaar nee na day mel ne dangaa goreel ab jaam te it bis boobu nga ko wax dañ lay sàmm ba boo ko waxee ci suba si dañ lay sàmm di la aar ba keroog ngay gont boo gontee wax ko dañ lay sàmm di la aar suñ boroom dana la sàmm aar la ca sàmm ak aar gi mooy ci lépp ba keroog ngay ba keroog xëyaat kon loolu ñu ëpp naa sàggane loolu ëpp naa sàggane beneen ba ca topp mooy subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kooku nit ki da koy wax téeméeri yoon bu ci suba si euh, ak ngoon gi da koy wax téeméer yoon suba si mu wax ko téeméer ngoon gi mu wax ko téeméer مي توب موي اصبحنا واصبح الملك لله بوب موم بو سيولا بوي خي فكي سوبا اصبحنا واصبح الملك لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذه ال... خير ما في هذا اليوم وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعدها ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر loolu mooy bu fekkee ci suba si bu dee ngoon la da nga koy soppi wax am say naa doo wax asbax naa am say naa wa amsal mulku lillah ba agsi ci waat xayra ma fi hadihi layla xayra ma fi hada al yowm da nga koy def xayra ma fi hadihi layla min charri ma fi hada al yowm da nga koy def min charri ma fi hadihi layla kon boobu ci da nga koy wax suba di ko wax ngoon beneen bi tamit allahumma bika asbax wa bika amsayna wa bika naxya wa bika namuut wa ilayka nushur boobu da nga koy wax ci suba bu dee ngoon gi nag nga da nga koy euh, da ngay wax allahumma bika amsayna bika amsayna bi ngay jiital mooy gont allahumma bika amsayna wa bika naxya wa bika namuut wa ilayka almasir bu dee ci suba si yaa ngi waxoon wa ilayka nushur bu dee ngoon gi yaa ngi wax wa ilayka almasir boobu it dañ koy wax ci suba di ko wax ci ngoon beneen ba ca topp mooy al ixlaas mooy jàng suratul ixlaas qul huwa allahu ahad ba saar ba jeex qul a'udhu rabbil falaq ba saar ba jeex qul a'udhu rabbin naas ba saar ba jeex loolu dañ koy wax suba di ko wax ngoon beneen ba ca topp mooy bismillahi alladi la yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi lsama wa huwa samiu alalim boobu it da koy wax benn yoon suba wax ko benn yoon ngoon beneen ba ca topp mooy رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا بوبيت دنكوي جل بن سوبا جل بن غون لي كم اي كم اي اي كومبريمي لا اي غراب لا يو خامني يونتي بي صلى الله عليه وسلم موكو جوخيل بوبا دو اي دوغ يو خامني دان نان لا ديو ولا ديو سانغام ديديت يونتي بي صلى الله عليه وسلم مي يالو دون وحي مو جوخي دوغ يي تاي حديث وير كون امول benn benn benn dog bu nit ki mën a indi bu gën bii nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko indi te yu néew la yu yomb la yaa gis koo xam ne dog yi muy joxe kenn xamul ñaata la ay junni junni nangam la lay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim lay jox li ci gën a bari li ci gën a bari ah, téeméer la yam li ci gën a bari téeméer la yam kon nga jël dog yoo xam ne ñoo gën a woyof ñoo gën a neex a mokkal te it moo gën a wér tay jóge ci ki gën ci mbindeef yi ci ki nga xam ne yàlla moo koy wax yu nga bàyyi ko fa di jël ay ay leneen ak leneen loola bokkul ci xel beneen ba ci topp mooy allahumma fatir alsamawati wal ard alim alxaybi walchahaada rabba kulli cheyin wa malika ba ñaan ba jeex beneen ba ci topp allahumma inni asaluka alafiyata fi dunya wal axira يما تود يب نكوي تود سبع أنقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي بلين بجتوب نخمني موتي مجو موي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شاني كله ولا تكني الى نفسي طرفه عين يمتو دي ييب موي ييغا خامني دنج كاي واخ صبا ديكو واخ غون مو ام يو سي صبا سي دونغ لنج كاي واخ كين دوكو واخ سي غون غي موي ñaar kese bu ci ñeek moy subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati bobu أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ñaar yooyu suba lañ koy wax mu am yoo xam ne tamit ci ngoon gi dong lañ koy wax ci ngoon gi moom lañ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق boobu boobu ngoon rek lañ koy wax am boo xam ne ci guddi rek lañ koy wax mooy bu jant bi sowee bu timis jotee ba fajar ci guddi gi heure boo ko ci waxee baax na mooy mooy ban mooy nga jàng ñaari aay yi mujj ci suratul baqara muy amana rasuulu ba suratul baqara jeex muy ñaari aaya yooyu ko mën a ko mën a mokkal nga mokkal ko ndax saa sallam nee na ñaari aaya yooyu ku ko jàng ci guddi mu doy la sëkk mu doy la sëkk ak mu mu feg la it ci lépp ci ay loraange ci ci ay nit ñi ci ay seytaane yi ci ay ku iñaan ci lépp la yonent bi saa sallam wax man qara'ahuma fi laylatin kafataa kon yooyu yu am solo la yu jar a bàyyi xel la kon incha allah ñu amale foofu darsi bi ba beneen yoon sallallahu wa sallam ala muhammad